Pape Alé libéré Pape Alé libéré Pape Alé ginnaaw juróom benn fan ci weeram novembre bañ ko jàppe moom Pape Alé Niang ñii di taskatu xibaar yi nekk ci diwaanu Njaareem doole nañu seen doole dox ñaxtu li ni mel Adama Ndiaye mi yor seen kàddu di leeral lañ koy tuumaal. li nga xamante ne moom la ñuy tuumaal Pape Alé Niang nee na dafa joxe ay xibaar ya nga xamante ne xibaaru militaire la yu ñu kenn autorisé wul ak maanaam randal ay documents administratifs militaire ak joxe ay information ya nga xamante ne jaaduwul teguwul ci yoon te wéeru ko fenn. moom mi la sax di Adama Ndiaye dikkaat na ci li nga xam ne moom moo di ak jaay doole gi nguuru Sénégal li def ngir fànq lépp muy liberté de la presse. li nga xamante ne moom lañ koy toppe noonu teguwul ci fenn. dañ ko teg ci li nga xamante ne yaa ma neex la fexe jaay ko doole ngir li nga xamante ne moom la bëgg di wax du ko wax ni mu ko soobee. ñoom ñi le sax nee nañu kuréel gi nga xam ne moo leen wala fii ak benn fan ci weerab décembre la may ñi nga xam ne ñoom ñoo di nguur ak Sénégal ngir ñu bàyyi Pape Alé Niang. comité de protection des journalistes nga xamante ne mu nga fële ca États-Unis moom nee na daal jox na nguurug Sénégal ab ab bi mooy benn fan ci weeru décembre bu fekkee ne deltuwul ginnaaw dinañ xool naka lañ koy wàccee ci dëkk yi nga xamante ne ak ak yelleefu journaliste daanaka kenn fonk ko fi moom daal gouvernement bi dafa mel ni maa lay def te loolu dafa war a dakk ñoom ñi di taskatu xibaar yi nekk ci diwaanu njaareem nag dajaloon nañu jébbal seen mémorandum gouverneur bi la ñu bëgg rek moom moo di liberté d'expression ak liberté de la presse ñu may leen ko ngir ñu mën a liggéey seen ak liggéey ci anam bu jaar yoon Malick Gningue ngir Bambey 24